bamba moom kenn xamul lu muy nural kanamam ko yaatu gi rëy mel ne bàmmeelu nag ah seen lex yi ngay ngande yi mel ne arbitre bu retraité dinaa toj seen cott nday yéen ñëpp ausu makeer dinaa may këp sa dajaw nday sa cokk yaay laay jër roof ko eh, eh, eh, afruwaa ndayam sa cokk nday ba ba mu pare ma ma ma ma ma may këp tuunu ndayam nga naan ausu makeer doomu xaraam yi jëm dollar yow moom sa data yaay du gis du gis CFA sax bay laal dollar dinaa jël dollar gi transformé ko ay CFA sa biir data day ku ngeen masoon a sàcc rek na ñëw ci live bu tey bii dinaa ka osé ordre safelu mali bi laay jël sa data yaay ni mu osé moom ci koy sotti oos ndayam ni mu oose damay xoos ndayam ak ordre safelu mali bi set wecc yéen ñëpp laay jël seen drapeau yaay peinture ko def ko drapeau Ghana tey incha allahu rabbi ñii laay laay fal une heure Europe minuit Sénégal xaalisu jàmboor yi la ñuy arnaque di ko sàcc dan naan la yow dan lay signeel naar bi duggal ci link bi nga dugg envoyé xaalis ñu lekk xaalis bi te ñoom dañ naan la da ngay gagné par force lekk nañ ci xaalis su suñu bëri ay arnaqueur nañ bu ngeen leen gisee nag ñoom ñu toog ci appartement yi di lix ànd ak ay caga caga yi nii àndal yépp naa leen ko wax nekk ci appartement yi yéen su jàmbur ngeen demee apartement du ngeen kat seen data nday liggéey ngeen ñapp ndayam di arnaqué di sàcc ay xale yi njaw di liggéey seen xaalis ngeen koy lekk ci nii dinaa ku lekkoon ci xaalisu nit ñi di nga ko génnee dinaa toj seen lëfal ndey bu baax toxot seen nopp ndey fuddan seen taatu ay afruwaa seen tuunu ndey wat seen cokku ndey ba mu set sotti ci eau de javel mali bi tëjaat lëfal ndeyam yéen tey ma ŋaayi seen bunu ndey rof ci ay mbëtt ba ci ganam